Ah, ñi nga xam ne des nañ ci géej gi yal na leen yala xare arjana mais gars yi nañu bàyyi loolu. du ma ñëw ba dem dama koo fàtte woon te ñëwuma ci ci ci ci maanaam góor jigéen yi. yooyu dañ ko xam nga lañ ci la ñuy wax. waaw ñun nañu wax ci affaire gaal yi. waaw non yi buñ ciy wax mooy moo di ne. yi nañu bàyyi loolu. dem Espagne bu doon tax nit dem Espagne ga dem gaal. Mhm. kon ambassade du fees ay nit. état bi aussi jéem a gën ay prochain xale yi toog liggéey du ma wax corona ndax feebar bon la li yëpp moom la. lamb yi tegatul mbor yu bëri ñoom du ma bugg a tudd sax mbor yu bëri ñu ngi Espagne yi di souffrir ci yoon bi yow war nga see xam dara am na mbor yoo bëri yoo xam ne dem nañ ci yoon bi gis naa leen sax am na ñoo xam ne xam naa ne ñëwaat nañu am na ñoo xam ne ñu ngi càng nañ leen dimbale ñu ñib si te lii yëpp corona bi moo ko indi lamb yi doon tëgg yeneen tëgg gars yi duñ defee noonu mais feebar bi moo gën a yu bëri dafa tëj yu bari wàññeeku feebar bi nañ ko tuddee xaaj mbokk buñ ko wax corona. xaaj xaaj mbokk. xaaj waaw. moo tax kër yu bari yoo xam nga ne corona bu mu amee ñoom nangoo dem fenn. bu ma juumul woo nga ma pour ñu def interview sax te mënuñ koo def. ci corona bi. may ma lay jéeglu nag ndax woo nga ma lu bari pour ñu def interview te jot bi mayewu ko. ma lay jéeglu bu baax a baax nit ku baax nga doon nit nit koo xam de ndax man kese du ma mbor. su may wax sax moo gën a néew Sénégal te terewul tout le temps nga woo ma ne mais ngay liggéey pour média pour ñëpp bàyyi loolu ku xuloo yow sax demal defal ko interview ak fierté may wax gars yi gars yi nañ bàyyi gaal yi ma nekkoon naa ci gaal deux mille quatre vingt ba deux mille cinq ci gaal laa nekk ngelaw bu la fekkee ci géej nga xam ne jaroo dem sax fii sax ba wéeru woowu ñi xamul lekk est-ce que xam ne géej gi boo déparé fii ñi nekk mool yi ñooy mujjee dee si gaal bi gara mos nga dugg gaal mos nga dugg gaal yow. gaal laa ci def. na nga fexe dem géej. mu benn neer xam nga lu ñuy xam nga wax neer. dégg naa daan am mool bu bees une semaine du mën a nap day day ka day kii nu mu tudd ci biir gaal gi day toog du mën a jóg ba taxaw yow mosoo dem géej ngay naan da ngay dem Espagne du ma ci encouragé kenn.